koor nag am na ñuñ ko teggil mooy ñoo xamante ne may nañ leen ñu bañ a woor te du ñu ko fay bokk na ci ki nga xam ne dafa feebar feebar bu dul wér te bu wooree woor di ko yokk wala sax mu dem ba mën cee faatu ak tamit mag moo xam ne dafa dem ba màgget ba àttanatul koor nga xam ne bu wooree sax mën na cee loru ñii dañu leen a teggil koor te duñu ko fay waaye nag dañuy joxe mudd am na ñoo xam ne aussi dañuy nekk ci ay situation yoo xam ne may nañ leen ñu bañ a woor waaye bu situation booba jàllee dañuy fay koor ga mi ngi mel ne tey ki nekk ci ab tukki maanaam tukki bu dagan boo xam ne dangay wàññi julli jigéen ji nga xam ne dafay nàmpal ci sartu nag bu wooree doomam mën naa loru ci koor gi jigéen ju yor deretu règle maanaam jigéen ju gis mbaax wala jigéen ju yor deretu wasin mooy ko am doom di génnee deretu wasin ñii may nañ leen ñu bañ a woor ci moment booba waaye bu weesoo dañuy fay bis yooyu nga xam ne wooruñu ko woon ba tey deretu règle wala deretu wasin fu la fekk ci bésu woor dangay dagg koor googa nga lekk nga naan koor nag dafay dooli ragal yàlla dafay jegeele itam nit ki boroomam ba pare dafay yar bakkanam